sa dama kontaan ndaxte dama sant yàlla bu baax sant sama ñaari waajur kontaan naa trop ci combat ndax victoire dafa neex dugg na ci ay tolof tolof waaye lépp a jeex na lu dul jeex amul nguur yàlla rek moo dul jeex lu waaye muñ rek mu jeex waaw. du ma ko seetaan bi tey sa seetaanuma ko seetaanu ma ko waaw yuuxu kontaan ak yuuxu naqar boo ko déggee dangay ngay xam waaw ah, naka jag dama koy ñaanal gudd fan nag wér ndaxte dafa yaru dafa teey jàpp na ñaari waajurum am na ñaana ñaani waajurum ว้าวมันค่อยงานมอมาตมเดินลชลหอมว้าวมนลมันค่อยงานเดียรลบ่ามีคมายันมันค่อยงานมาไินดับแต่สมัยดอมเลยยุ่มยาริบสมัยดอมเลยว้าวแล้วชลีฟอร์เองเล่นเ่เล่นเคยไปคเป็ดียกันเลยครอบเลยครับ